lii di décret 204 804 bu président Macky Sall di jël maanaam nommé euh, par décret la haut commandement de la gendarmerie Euh, euh au rang et les avantages du chef d'état-major armé vis-à-vis du chef personnel de la gendarmerie nationale décret boobu nag naka dem nañ ko daal di jël titre premier l'organisation chapitre premier di commandement de la gendarmerie nationale article premier la gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées ses formations prennent rang à la droite des autres fonctions et les prises d'armée et défilent en tête des groupes. Les lois, règlements militaires lui sont applicables, sauf exception motivée par la spécificité de son organisation et de son service. Euh, elle est compétente sur toute l'étendue du territoire euh, national. Elle exerce ses compétences de police administrative et judiciaire dans les villes et les euh, communes ainsi que la police militaire auprès des forces armées. Article 2. Le haut commandement de la gendarmerie nationale est nommé par Euh, parmi les officiers généraux de la gendarmerie nationale, il prend euh, le titre de l'appellation du haut commandement de la gendarmerie nationale et le directeur de la justice militaire. Il a le rang et les avantages du chef d'état-major des armées vis-à-vis -vis du personnel de la gendarmerie nationale. Article euh, Pour l'exercice de ses fonctions, le commandement de la gendarmerie nationale est assisté d'un officier général nommé par décret ayant le titre de haut commandant euh, en seconde de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la police militaire, il a le rang et les avantages du sous-chef euh, d'état-major euh, général des armées vis-à-vis -vis du personnel de la gendarmerie nationale. Il dispose d'un cabinet euh, de l'état-major de l'inspection interne de la gendarmerie Euh, nationale di euh, commandement de la gendarmerie territoriale di commandement de la gendarmerie mobile di commandement des écoles et centre de formation du commandement des formations spécialisées du euh, commandement du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale des services administratifs et de soutien. Pour l'exercice de ses attributions de directeur de la justice militaire, il dispose euh, d'une diffusion d'études législation, d'une diffusion études contentieux, d'une diffusion poursuite. Ces diffusions sont rattachées au cabinet du haut commandement de la gendarmerie nationale loolu euh, mooy lu ñu jot a publier ci journal officiel euh, dinu xamal ni rek euh, lii di le haut commandement de la gendarmerie daanaka moom ak kii di chef d'état-major bu arme ñoom ñoo yam li nga xam ne nag moo di dayoo loolu nag ku ci nekk daal di ci am anaan analyse bi nga si daal def bijou ah, ba fekkee eh, kii di eh, commissaire Sadio jàppandi na mën nga ko daal di dugal rek mu wax nu ana ban gis-gis la am ci eh, li nga xam ni mooy décret. 204 euh, 804 bi euh, tax euh, lii di national la nekk ci tiitalu li nga xam ni moom di arme bi kenn ku nekk nag yaa ngi kay analyser di interpeller ki nga xam ni moom mooy le président Bassirou Diomaye jaxaar Faye ku ci mel ni Lansana Gagny Sakho moom nag mi ngi daal di mettre en garde kii di président Bassirou Diomaye Diakhar bi bijou bu fekkee mi ngi ci en ligne mën na ko jël asalaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. mon commissaire ziar naa la. waaw jëloon naa la ziar waay. daal la waaw d'accord ok. Hmm. père nga nu nu nu bàyyi la moo commissaire nga euh, jox nu ah. ay leeral. Euh, jëmale ko ci décret bi nga xam ni euh, moom laa doon junj léegi daanaka ginnaaw décret le haut commandement de la gendarmerie nationale a le rang et les avantages du chef d'état-major. Mm-hmm. ma ban leeral nga nu ma indi ci li waaw mais c'est que ce qu'il faut aussi ngeen xam. Mhm. mooy euh, gendarmerie euh, ci militaires yi lañ bokk. Mhm. ci ministère des forces armées la bokk. Mhm. c'est que day corps boo xam ne dafa am euh, une double fonctionnalité. ay militaires lañu waaye ay militaires yoo xam ne aussi dañuy am ay mission de police. bon seen tutelle mooy ministère des forces armées mais le ministre de l'intérieur. Euh, am na disons euh, mun na disposer de la gendarmerie en matière de police administrative. Mhm. et de rétablissement de l'ordre public. maanaam boo gisee ñuy def ay manifestations yi. da ngeen di gis gendarmerie d'un côté policiers yi d'un autre côté quelquefois ñoom ñooy bokk di liggéey sax quoi. Mhm. donc souvent si rétablissement de l'ordre ak de l'ordre ñoom ñoo koy bokk. parce que mhm. tout simplement am na décret boo xam ne je crois que c'est le décret 2014. 869 euh, du 22 juillet. 2014 n'est-ce pas uh-huh. euh, relative aux attributions du ministère de l'Intérieur mooy prévoir uh-huh. que ministre de l'Intérieur bi nga xam ne moom mooy chargé sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire national uh-huh. maanaam mais kii si Sénégal bi yëpp n'est-ce pas donc war na mën a disposer de la gendarmerie quoi waaw mais ñoom gendarme yi ils dépendent n'est-ce pas des ministères des forces armées donc général bo xam ne mu ngi foofu gendarmerie war na mën a am les mêmes avantages que généraux yi nekk armée quoi voilà exactement alors euh, ci décret bi euh, di jox euh, ki nga xam ni moom mooy le commandant de la gendarmerie nationale même rang bi nga xam ni moom la chef d'état bi am waaye aussi même avantage est-ce que du indi benn jiix jaaxa ci biir armée bi. non non du indi benn jiix jaaxa déggoo. Mhm. nee naa ay militaire lañu. Mhm. donc un général bu nekk gendarmerie mun na bénéficier des mêmes avantages qu'un général qui est dans mhm. parce que ki nekk armée ëppaloo ko dara. ni ki nekk armée nekk militaire noonu la ki nekk gendarmerie nekk militaire. Mhm. c'est-à-dire que nag a un travail supplémentaire bu ñuy jox gendarmerie. Mhm. en matière effectivement de police administrative. Mhm. parce que gendarmerie xam nga dafa am sécurité intérieure ak sécurité extérieure. léegi en matière de sécurité intérieure bon à titre principal gendarme ak police lañ ko jox. Hmm. waaw ñoom liggéey liggéey boobu quoi maanaam contrôle circulation yi yenn pièces yi ñuy joxe citoyen yi maintien de l'ordre boo amee ak yu mel noonu quoi hmm. waaw ñoom ak policiers yi ñoo ko bokk mais policiers yi ñoom du ñu ay militaire hmm. ay paramilitaire lañu quoi comme eaux forêt comme euh, nu mu tudd douanier yi ak yu mel noonu quoi mais puisque am nañu statut militaire donc lépp loo xam ne avantage la militaire yi am ko ñoom dañ ko war a am c'est ça le problème du loo xam ne bon du loo xam ne c'est c'est c'est bizarre quoi hein c'est dans mhm. l'ordre normal des choses. Mhm. lu normal la. waaw lu normal la. Mhm. lu normal la. exactement alors loolu aussi est-ce que du am benn implication euh, ci événement yi nga xam ne moo fi amoon dalee ko 2021 jàpp 2024 ñu bëri di joxañ baaraam tuuma li nga xam ne nag moo di police ak gendarmerie. Euh, dégguma question bu baax. ma ni loolu est-ce que du indi euh, benn implication jëmale ko ci événement yi nga xam ni moo am 2021 jàpp 2024 ñu si joxoñ baaraam tuuma lii di police ak gendarmerie. non non non ça ça ça n'a aucun rapport rapport bon mm-hmm. parce que li xew li xew nu mu tudda ci ci événement yi. Mm-hmm. comme ni ma la ko waxee c'est dans le cadre de manifestation. Mm-hmm. bon léegi ñoom en tant que euh, chargé de. de la sécurité intérieure. Mhm. vraiment police ak gendarmerie ñoo war a problème boobu. Mhm. donc fi mu toll fii euh, maintien de l'ordre la ñuy def mhm. maintien de l'ordre boobu gendarmerie yi nga xam ne ay militaire lañu mais ñoom ñoo ko bokk ak police. donc léegi ñoom ñoo bokk pratiquement ni ñu koy liggéeyee quoi à part que am na différence ci seen doctrine d'emploi. waaw parce que ñëlee xëy na pour yëkkati leen du yomb trop comme ni nga yëkkati euh, nu mu tuddati euh, police. Mhm. parce que ñooy autorité yooyu autorité administrative muy préfet yi. Mhm. ñoom ñoo leen di yëkkati n'est-ce pas te ku mhm. nekk am nga façon boo xam ne noonu nga koy yëkkati. mais li nga xam ne moo jàll si manifestation yi. Mhm. kooku évidemment ñi ñaa ngi déplorer moor yi nga xam ne amoon na foofu euh, n'est-ce pas blessé yi amoon foofu mhm. mais kooku n'est-ce pas euh, comme ni ko Sidiki Kaba waxoon bu ñu defoon enquête dañu mën a xam fu ñuy situer responsabilité yi mhm. est-ce que c'est force de l'ordre la est-ce que c'est force de l'ordre yi kese la wala est-ce que aussi si euh, dizaine de nu mu tuddati nervis yi nga xam ni dañ leen a jox fetal arme de guerre ñu nekk wàcc ci population bi te mënuñu tirer fetal mënuñu yor fetal exactement exactement alors Euh, mon commissaire mmh. question waaw est-ce que tey ji yaakaaroo ni euh, député yi bu nu gisee ni décret bi euh, dëppoowul ak yoon ndax euh, képp ku laalee lu ko dalee 2021 ci ba ci 2024 nekk ci li nga xam nag moo di corps gendarmerie wala police est-ce que duñu li nga xam nag moo di décret boobu fële ca conseil constitutionnel non non décret bi mënuñu ko attaqué dégg nga yëf yi du tey c' depuis mhm. il faut ñu ñu xam ko hein c' est depuis l' indépendance que les gendarmes yi nekk ay militaires du léegi lañ dugal armée ah. yàgg nañu force militaire police moom force paramilitaire la. Mhm. bokkuñu quoi mu ngi mel ni par exemple en France mais am na euh, am na genre fusion boo xam ne gendarmerie ak police ñoo ko def. parce que c' pour harmoniser effectivement leur mode d' emploi parce que dafa am dualisme quoi. dans l'utilisation de forces de sécurité au niveau mhm. du Sénégal si taxi mais en France régler nañ loolu gendarme yi ils sont euh, sous la tutelle on sous l'autorité du ministre de l'Intérieur mhm. n'est-ce pas kooku pour une meilleure harmonisation là euh, une meilleure cohésion et une meilleure cohérence euh, dans les missions règle quoi mhm. mais fi mu nekk décret bi gisuma en xaw ma eh, xëy na am nañu ko bëgg attaqué mais xaw ma man ci ban fànn lañ koy attaqué. Mhm. parce que on peut pas reprocher à ce décret là de conférer le statut de militaire aux gendarmes. Mhm. parce que statut boobu am nañ ko depuis lu yàgg ça fait des dizaines d'années. Mhm. du léegi la quoi xëy na nag am na lu bees lu si dugg xëy na dañuy yemale traitement yi diggante euh, gendarme yi ak euh, xëy na militaire. xëy na loolu moo bees parce que texte bi liiruma ko ba xam exactement lan moo nekk ci exactement mais c'est depuis les indépendances que les gendarmes yi nekk ay militaires. Mhm. beaucoup de policiers statut mhm. très important. merci beaucoup. Mhm. bon commissaire ñu ngi lay jaajëfal a baax. merci beaucoup ñoo ko bokk merci moom commissaire ci leeral yi nga xam ni euh, indil nga nu ko jëmale ko euh, ci décret 204 804 bi nga xam ni daanaka dafa commencé indi euh, polémique ginnaaw bu ndaa di nommé par décret le haut commandement de la gendarmerie nationale à le rang et les avantages du chef d'état-major vis-à-vis di euh, chef euh, personnel de la gendarmerie nationale alors euh, ci mbir moomu kii di Lansana Gagny Sakho moom nag mi ngi mettre en garde le président Bassirou Diomaye fay sur sa page Facebook il estime que ce décret a été signé le 26 mars 2024 après la certitude que le président Diomaye Faye serait le prochain président. Si la gendarmerie était sous la tutelle de l'armée, on n'aurait jamais eu ces répressions sanglantes. Pourquoi maintenant seulement? Euh, de poursuivre, euh, la séparation des tutelles de l'armée et de la gendarmerie euh, avait une bonne cohérence et l'a probablement permis au Sénégal au Sénégal de ne pas connaître des coups il y avait euh, comme un équilibre des forces il faut être naïf pour croire qu'il peut y avoir une euh, paix avec Macky Sall. Tous les actes qu'il pose à quelques jours de la fin de son mandat entrent euh, dans une logique de fragilisation du prochain euh, président. Le président Diomaye Faye doit prendre la pleine mesure de tous ces pièges et s'entourer des spécialistes pour déjouer. Ousmane Sonko doit également euh, plus que jamais être présent aux côté di président Diomaye Faye euh, pour euh, neutraliser Macky Sall loolu mooy kàddu yi nga xam ni Euh, moom la Lansana Gagny Sakho daal di yëkkati euh, ginnaaw euh, décret 204 804 buy nommé kii di le haut commandement de la gendarmerie mu am même avantage ak kii di chef d'état-major bu armée bi moom na Gagny Sakho mi ngi jàpp ni rek tey jii bu fekkoon armée bi dafa nekk lii di gendarmerie bu nekkoon ci loxo armée bi tey jii lu nu jot a gis 2021 jàpp 2024 du am mukk ci li nga xam ne nag moo ci biir réew mi ndax gendarmerie ak. police dañoo war a nekk en bonne cohésion moom Lassana Sakho nag mi ngi ñaax kii di président Ousmane Sonko mu jege bu baax a baax kii di président Bassirou Diomaye fay ak ñeen ñoo xam ni seen xam-xam dañoo màcc si lu mel maanaam nekk ay spécialiste pour rek daal di déjouer lépp lu président Macky Sall daal di teg. Euh, Père Ahmed Habib euh, ban jàngat ko mën a am ci décret bi nga xam ni euh, moom na ñuy junj sànq ba léegi kenn ku nekk yaa ngi siy joxe sa attribution. Euh, d'abord damay nuyu commissaire Sadio. bi nga mm-hmm. xam ni moo def leeral yi am solo. ak euh, ki